nationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu yëpp aju mi ak ci bitim réew. internet yi ñuy bàyyi seen info point ak seen info international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal la tënkub xibaar tey lundi di 20 juin 2022 ñu tàmbali ko xibaaru biir réew mi. leader opposition yi nga xam ne nag dañ leen tegoon loxo euh, ajuma bi ñu génn ci manifestation boobu nga xam ne dañ ko. aaye woon muy Déthié Fall Mame jaara Fam ak Ahmed Aidara bésub tey bii nag euh, dinañ jàkkaarloog àttekat bi fële ca euh, tribunal ñu war a xam ndax ndax dañ leen di bàyyi ñu dellu euh, seen kër am déet ñoom nag ñu leen di toppee mbir moo xam ne kon da nga bokk ci manifestation boo xam ne dañ koo tere wante itam euh, trouble à l'ordre euh, public ak provocation d'un attroupement fële ca jigéen it ki nga xam ne moom mooy Guy Marius Sagna samedi bi ñu génn dañ ko fa teg loxo gannaaw bi nga xamee ne dafa demoon foofu foofale ca commissariat bu Ziguinchor ngir nemmeeku ay manifestation yoo xam ne eh, dañ leen tegoon loxo moom moom leen di gi Marius Sagna it bokkoon na ci manifestation bu ajuma bi nga xam ne dañ ko aay woon itam foofu foofale ca Ziguinchor Serigne Moustapha Sy mi njiital Moustarchidine yi wante itam nekk ki nga xam ne eh, moom moo fondé partie bii di pure moom nag démb xam xamle na ne mu ngi ànd ak waa coalition Yewwi Askan Wi eh, te sax nee na mu ngi leen di encouragé ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko moom nag euh, nee na leen daal liggéey bi ñu liggéey nañ ci nekk mu ne moom bés boo xamee ne war na intervenir war na daal euh, def li mu war a def euh, bu jotee dina ko def moom nag nee na daal ñi nga xam ne kon ñoom ñooy waa coalition bi taxawaay bi nga xam ne am nañ ko nañ ca gën a euh, dëgër mu ne nag Macky Sall ak euh, régime am des na tuuti dinañ ko xam moom moomule euh, di Serigne Moustapha Sy nee na nag élection législative yi ñu jëm moom daal moom moo war a doon tàmbaleeg Macky Sall jóge ci boppu Sénégal démb ci dimanche bi ay agent yu brigade mobile bu douane bu Kaffrine ñoom nag ñoo teg loxo fële ca commune bu Boulel nekk ci département bu Kaffrine lu toll ci six mille quarante sept boîtes yu faux médicament muy ay garab yu baaxul euh, te sax seen euh, poids toll ci quatre cent dix neuf kilogrammes euh, garab yooyu nag bañ ko xayma seen njëg toll na ci cent trente six millions quatre cent soixante quinze mille cinq cent quatre francs CFA. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleek Tunisie foofa nag démb ci dimanche bi ay nit yu bëri génnaat nañ di manifester di wane ne ànduñ ci projet référendum bi nga xam ne eh, kii di njiitu réew ma di kay Saied moom moo ko bugg a amal eh, ci eh, mois de juillet bi ñu dëgmal ngir soppi li nga xam ne moom mooy constitution ba ca Mali nag lu toll ci vingt si ay civil lañ fa faat euh, fu jege gaawo foofule ci noor Mali nga xam ne nag kon lii di kaaraange gi daal euh, dafay wéy di am ay jafe-jafe bu sukkandikoo nag ci ñii di euh, France 24 ñoo joxe bile xibaar ñu ne itam am na benn casque bleu boo xam ne dafa bokkoon ci contingent guinéen bu MINUSMA moom it dañ ko faa faat dimanche ci ab ndell boo xam ne dafa tàkk foofule ñuy wax daal xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy ca France foofu nag euh, xam ngeen ne dañ fa doon amal élection euh, législative yi ñu doon amal nag li nga xam ne moom mooy deuxième tour yi wante nag euh, ki nga xam ne moom mooy njiitu réew ma di Emmanuel Macron ak ñamu àndal dañoo ñàkk li nga xam ne moom la ñuy wax majorité absolue foofu la ci assemblée nationale ba ñoom nag lu toll ci deux cent quarante cinq sièges kon la ñu jota am ñu ne nag li ni mel. lu njëkk la foofu foofale ca France gannaaw bi nga xamee ne kon daal euh, coppi nañ li nga xam ne moom mooy euh, calendrier électoral bi ci 2002 ba sax tax li nga xam ne moom mooy présidentielle yi day jiitu euh, législative yi topp ca li la ñeen nun tey ci ay xibaar dafal seen teewlu di leen jox daje ëllëg jaa ngeen jëf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 fépp ci àdduna bi seen groupe d'information seen info international ndimbalu askan wi moo ko